waxu suuf boobu bi ngay dégg noonu yaakaar naa soo wut jamono nguur Macky ministre jeunesse ñëwoon na Tamba fi mu ne Tambacounda dafa war a am dak bi ñu ko waxee nag ñu ne ñaani tukulóor am na suuf boobu ñaan tukulóor war na jël dàq bi. bi ko yàlla dogalee nag ñun ak gouverneur ak population bi yëpp ñu def forum bu mag ci biir ñaani tukulóor ñu waxtaan bee ñu d' accord conseil municipal jokkoog Prodac 1000 hectares. ñu toog ñaari at Prodac ñëwut yëngatut ma woo conseil municipal ñu waxtaan. ñu ne nañ jël suuf bi ñun béykat lañu dañu ko joxe pour nit ki ñëw investir foofu mu amal commune bi njëriñ comme que na ñëwut dañuy jël ko suuf bi ñu toogaat ñu dégg business global mu ngi am benn commune bi nga xam dafa liggéey foofu. bi ma ko déggee gouverneur dafa war a dem foofu ma woo chef de village yi ak conseil municipal yi ma ne lañ dem ñu xool kooku itam comme que jël nañu ci euh, mille hectares bi ci loko Prodac.